Pastef moom Ousmane Sonko dafa am genn gone ngoo xam ne neen da ko siif ba muy ñeent yoon di ko tiimale pistolet ah te du la léegi nag ca guddi ga mbir yi déclenché alaaji Pape Alé am na lu ci cof néem xëy na loolu jógee ci euh, côté takk der ya waaye eh, man moom ci côté kër docteur dégg nga. xale bii di aji saar. saara mun ne. saara mu ne siiw lool. waaw dañ ne moom masseuse la day maase. mais nee nañ fi mu nekkoon di fa liggéey. daa nëbboon patron ne amoon na beneen liggéey. ndax aji ndekete nee nañu. da doon tamit dafa nekk ci salon de couture. di ñëw day salon de couture bi. tudd madame Talla Xuma. ah bon. mu liggéey. salon ba nekk wetu kër Maodo Malick Mbaye anamu. Mhm. coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm? xale bi nag bu fa ñëwaan foofu lay toog nan leen maay maase Ousmane Sonko. foofu nag la doomu jarbaat la neveu mhm. Maodo Malick Mbaye di ko déggee mhm. <laughs> bu ñu ne yëggee ko seen waa kër bonjour les dégâts ah! dégg nga loolu bu baax ah, yow damay ñëw ci kër docteur ni mais fu mbir mi commencé. nekk na yëpp moo sax donc moom bokkut ak salon de massage am na beneen liggéey. déedéet mooy ñaw boobu fa la xamante. voilà niveau boobu ñuy tudd ci tur bi. mooy Sidi. dégg nga loolu. Mm-hmm. Sidi Ahmed Mbaye. Sidi continuer. Mm-hmm. ba ma amee nag ba mu dem gendarmerie. Mm-hmm. gendarmerie dañ ko ne. il faut nga dem wuti certificat médical. C'était le 3 février seize heures quinze réquisition bi numéro quatre vingt onze b bu section de recherche 3 février 2021 alaaj nag mooy bay xel waaw yow alaaj damaa noo yeeti réew mi kenn nooyewul nag damaa noo yeeti ah Adji Sarr moom saaga mbuñ na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 sa kas dafa am problème. non non non rek. nandite ma refi nandite rek. non ko laajte. bata ande. andaano. yow nekkal nandite. kii bu mu xam ne. yow xam nga ko xam. merci. non je t'adore. waaw. ba muy ñibbi nag. nee nañ patronam bi.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 Jakarta. te loolu après supposé viol bi la. guddi googu la. te waxul ma waxul patron bi dara. déedéet. dégg loolu alaaj bu baax xale boobu taxaw fa nag jël si ko mooy Sidi mm-hmm. mu dem moom moom sël mu yóbbu. bàyyi fa ka mu nekkoon noonu ci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 yëf yaa ngay leer. ñu ne ko waaw. Mhm. yow xale bu toll ni yow. Mhm. foo xamee médecin mu ne leen benn avocat dama booleeg moom. kàtt. avocat bu jigéen. moom moo moo ñu moo ñu moo ñu ko boole mu jël si ñu. avocat bu jigéen bi moom moom moo boole médecin bi pour mu jël si man booy bi. merci ma dox ma nekk yiwti diggante gel bi ak médecin bi. ba mu ndawal woote bi pour jëli ndaw si ci salle de massage bi ki doon massage Sonko. ku doon maase Sonko nekkoon ci biir saal ba ak keneen ku jigéen ku mu làkk ni ko bu ñëwee dafa naan te ma bu mu xam ni yow xammee nga ko sax. ñu doxal. Hmm. yaa ngi may dégg alaaji. waay waay alaaji déglu. léegi nag. man damaa noyyati. wuyu ma ah? dem nañ. Sëriñ yaa ngi may dégg. Hmm, hmm, da ngay dem kër docteur. da nga dem rëppatal dañuy defi xale ba pare di dem kër docteur. ñii dañuy defi prélèvement. ñu ne ñu ngi dem kër bañ demee kër docteur docteur xool gone gi mm-hmm. waaye kër docteur mm-hmm. ak gendarmerie yenn ci boroomi xam-xam nee nañ mm-hmm. ne leen réew mi yëpp félicité kër docteur defuñu luy nuru tappale antekatu gendarmerie section de recherche defuñu luy nuru tappale xamuñu ko bu dee complot daa amit ñooñu dañ leen ci génne xamuñu ko woo na ko nekko ko gaawal pare naa gaawal jël si ma pare naa ci la ko patron bi waxee ne ko ku lay jël si mu ne borom jakarta bi moom moo woote. bàyyi bi mu fa nekkal hmm. nga bu baax bañ demee ca kër docteur bi lan la wax nee na ko ci kayit gi. Hmm. liñ ci kayit mooy luy xeetoog pëcc pëcc. Mhm. pëcc pëcc. waaw. nit bu la nuyoo bës la sax. waaw bu bàyyi maanaam jonjoo. jonjoo. waaw jonjoo amul ci ci ci ci moom. awra ba léegi ay pëcc pëcc ak. ci kaw gàttal. loolu ko daal. maanaam sëyu l'examen médical de ce jour. sëyu sëyu gu bees. ne retrouve pas de lésion vulvaire.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 kon mu mel ni mu niwu feeñu fa. feeñu fa. waaye dama waaye dama bëgg nga déglu moo di waaye yow kii est-ce que abuma yeneen yeneen nopp yeneen xel yu lay déglu sax. dégg loolu si de. Mhm. nopp nag déglu déglu de. bàyyi la ñu nopp lu déglu. réew mi def na mhm. au contraire. au mhm. contraire. le médecin dit que wax mooy absence waaw.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 non non tey amul tey amul dédicace amul. amul anniversaire amul. médecin bi Alfousseyni Gaye la tudd gynécologue la. mooy ko xool xale ba. merci. waaw El Hadj nag wuyu ma. wala yàlla xaaral ma defar waat jëlee sama kàttan gi sa oto bi may naa la ko sa addiya ma. lii mooy investigation. caaxaan baaxul. ndey xadimee. Hmm. borom salon masseuse bi. ñoom salon de couture bi dafa aji saar dafa daan dóor waar. di ñëw mais madame la masseuse propriétaire mosu ko xam. kon moom ci tailleur ba muy métier da doon da doon xam ci salle de massage bi. voilà fee fee lay dem bu guddee mu mu kon fa muy kon. merci kon fii dafa doon rek xam matt. <laughs> dégg nga loolu alaaj waaw. Hmm. waa léegi ñu ne mi yëpp boo ko dajalee. Hmm.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 gendarmerie teg teg ñoom li lanu lii lanu def kayit yéeg yëpp lii lanu bindal waa kër docteur lii lanu bind mhm. daal di joxe waa laaj bi nag mooy xale bi moom dafa bind plainte mhm. ñu xuus ba démb sire mhm. procureur ne man léegi alaxam laay topp maanaam x kuy x te yow xale bu jigéen bi bi Ousmane Sonko xale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 non 16 euh, ci. ci 16 yooyu noonu c' est le temps de durée. procédure bi préciser parce que mun nga. non di ko tudd alaaj. Mm-hmm. kon dañ faa siinul ak mënuñ waaw. waaw mën nga bañ a siimee mën na xool ndax yow ci heure yi ñu génn. non non nee na kanam gi kanam gi jonjowul benn yoon lu dul jonjo gu njëkk ngay firndeel ni amatul ndaw. donc heure yooyu heure suivre. Euh, muy xool. préciser na ni heure yooyu. xale bi sëyu ci sëyu ci. sévère gars yi dañoo ñëw. mënut a sëy parce que Cameroun maa sant. Ah. du maasu gars yi ba ñaara fële. kon foofu mun na sëy feneen aussi. El Hadj maa ngi déglu de. Aba. Hmm. waaw ah, Aba la. Eh. Eh. Eh. waaw Aba la waaw. Aba. waaw. yow moomu yow moomu. waaye waaye yow sax foofu garaawul dañ ne la bu ñu wax sama oto la dugg barki barki démb. ñu wax ak beneen kilifa. waaw. Hmm? waaw moom moom yaayu Adji Sarr bëggul garaaw garaawul. waaw ah, kii ah, kii garaawul bàyyil bàyyil noonu. ci info yi la bokk xam nga ci leneen yow vrai investigation nga def. waaw léegi garaaw nañ côté boobu comme que ñoom nanguwuñu wax ñun duñu leen ko wax loo alaaji. waaw waaw buñ jëlee décision wax nag ñu daal di doxal. Hmm. noonu waaw.